ne benn góor rey ma fukki góor suuli ma jamais duma ko nangu. kii bi mu ñëwee problème bi da ma maa diis lépp baay maak lépp waaw problème bi génn ci borom dëj bi nag mën naa jooy dëjëm waaw jooyal jooyal. Euh, yow damaa yaakaar ne man sama jëmma la neex sama jëmm la saf. la Kiné ah, man sama jëmm la neex. xëy na it la ma yor daf laa neex. ah ah ah lay sëppoo rek. Dijeen. di waxaat ala ko am naa wul bee. wala wala. kon nag eh, eh, eh juum ngeen foofu Nokia bu sew bi chargeur ba fa ne de. ma gis nga li may waxatee ngi nii jigéen dafay jox cër jëkkëram xale yi taxaw nga naan ay chargeur yi Nokia ak ay ay ay chargeur yi iPhone.